voilà mbokk yi euh, lii ngeen di gis nii ab accident la taxi bi jaune noir bee taxaw moo daal di euh, laal jakarta jakarta bi nag mu ngi doon yeb euh, ñaari nit di ko dawal ak kenen ku mu yeb kenn ki dugal nañ ko ci oto sapeur yi ambulance sapeur yi mu ngi ci biir oto bi kenen kangi nële war leen mu touché call, ngeen xool c'est vrai que maa ci kaw voilà voilà keneen daa voilà ñii ñoo ci la dem ci bi métti na lool boo leen xoolee ci biir ambulance bi kenn saa ngi noonu tëdd vrai xaw naa sori voilà dinaa ngi seen keneen kii fële ci biir canal bi moom foofu la ko moto bi choc bi dafa métti lool parce taxi un peu taxi fii la jógee mu yëg gis ngeen ruu yi mu yëg boo leen xoolee tali bi bu baax yéen ngi gis trace ruu yi léegi taximan bi dafa am client mu doon tourné dafa tourné bàyyul xel jakartamaan beneen sens bi ndax am na kuy ñëw am déet donc loolu moo andi accident bi voilà keneen kaa ngi na tëj sapeur yi nag ñu nii di dem ak euh, l'autre blessé bon xëy na dañuy taxaw bu baax mën a jël keneen ki xamuñu ndax euh, oto bi benn nit lay jël loolu xamuñu ci dara parce que aussi booy wax dangay wax lu leer mais kenn kaa ngi nële tëdd dinaa seen ma tëj ko tuuti voilà mu noonu mu noonu waa moom na dem waay ok keneen gaa ngi nële tëdd accident bi cinquante euh, quatre bi la xewee ko Ziguinchor des cinquante quatre ok sapeur yi dem nañu ñu ngi nële di dem certainement ils vont revenir euh, chercher l'autre mooy l'autre accidenté mu ngi nële tëdd

Por isso.